waaye Christine yow lan ma la woowee doo ma ñëw wuyu. waaye léegi lan la. ana suba añ bi. añ baa ngi ci biir. Christine dama leen ni añ bi def nga ci kaani. def naa ci kaani nii bëri. ay eh, Christine bu ma fonto ak calakaat dina fooree man dama la wax nga def sama kaani ñaar kilo ak libre. mu yéenam kon ka libre dafa ndaw. man du ma lekk libre kaani dama bëgg. libre kaani laa la wax de libre kaani ndaw. dama bëgg mooy lekk kaani su ma bëj di juuy su ma ruxu su ma bakkati di wàcc. Christine a calakatide pori bu beneen yoon de ñaari kilo laa si defar ma ne nga dem indi ma sama añ waay mbaañ Jean-Pierre ah. jow xoolal maa ngi génn bu amee ñu may seet ñu xaar ma rek maa ngi hm, Christine waaye di sama bi waaye Christine waaye li laa loolu kaw Christine yow da nga ma jaaxal trop ma ne Christine du da kaani sumaan bi ba mu saf-saf kaani naa ko ba mu saf dinaa la wan ne mu ngi kaani dinaa kaani sumaan maa ngi sumb buteelu kaani demal Christine Lulu Njaago dafa kaam kaani bu saf-saf bi ba mu fekkee ni da nga jël sa nga naani ko da nga war a kaani dañu war a jël ah asalaamaaleykum maaleykum salaam. waaw na nga def. ça va bien. ça va. ça va. ça va bien. alhamdulilah. macha allah ça va bien. ça va bien. alhamdulilah na nga def. ça va bien. ça va. ça va bien. na nga def. alhamdulilah. macha allah. na nga def. ça va bien. ça va bien. alhamdulilah. alhamdulilah. Euh, kii lañ doon laajte. Euh, Zeyna Zeyna. Zeyna dafa génn léegi. waaw ah. dafa dem si bitik bi léegi nee na mu ku koy kaar mu ku koy seeti mu kaar ko. Ah. da nga jël banque bi nga toog. Eh, man ngaa añ ñun ay dañoo woor. ah yéen a ngi si koor gi dañoo koy wàcce waaw <laughs> ah dégg ngeen. waaw kon nag yéen a wóor de. waaw dañoo wóor waaw. ñun de nekk ñu si koor ñun njaago ma njaago ji bi la mbaamu ko. waaw. damaa gis ngay wàcce bool bi rek mel ni. ah déedéet du bool dama bañ a wóor. ah waaw ah kon yéen gën a. ñun njaago la ñun du woor léegi suñu woor dem na. yéen seen woor mais mais du njaago yëpp a nekk chrétien am na njaago yoo xam ne ay jullit lañ. man kaw ma boobu njaago man musulman musulman la. musulman toog. daanaka bëri na de. waaw ñun de dañu bëgg dañu bëgg bu ñu lekk kaan ñu jooy hmm. ñu ñaan ak bi mu génn ah. ah Zeyna soriwul kon moom. Zeyna soriwul sax waaw. ah ma dem ma seetal leen ko. ah, ah si biti ma woo ko. ah soriwul ah soriwul ñu def la. Ah, ah, ñu ne njaago ma woo ko nii nga dàq ma ji. ma si mu gaynde damay seetaan si mu gaynde di nga xiir woo seeni koor gi jaa nga leen si mu gaynde am na Sadio Sadio gaynde waaw ar moom ne man naa na kaani de ah yéen a ngi see jóge kana da ngeen a mos oh oh Moustapha Cissé Lo. ah sëñ Ndiaye. ah dama ñëw ñoom dañu woon franchement. ñii dañoo woor nga naan lekk munoo bàyyi sa dikkoo ak sa sos yi. ma ne bool maa ko def kaani mu lekk. ñii dañoo woor noppi bari nga woor xanaa nu mu nee yow moom gis nga kër gi locataire nga si na nga xam da nga réglé sa pecc de ak calakaar ki nekk foro thank you